kon jigéen ñi jox nañ ko bopp góor ñi jox ko bopp population bi jox ko bopp nañ ko ñaanal ngeen gën a nekk benn jàppale président de la république sama teewaay fii jaareer bokk na ci ñi jàppale président de la république pour lu mu bëgg mu am ko vote bu ne ci loolu ngeen ne kon bu ñu fi ñëwalee président de la république def nañ li ñu war mais booy seeti jàmbaar da ngay sawar li bon mooy ngay seeti yaafuus parce que booy seeti yaafuus da ngay imaginer loo wax pour mu rafet waaye kii da ngay gëmm di wax parce que loo wax dëgg la moo tax gën leen a jàppante